di len ñaanal jambi suñu borom ak njéggalam ak yermandem tay nak ñu bëggoon fatalenté tuuti ci tombi Serigne Touba yi bi nak di première partie bi ci suñu émission munawir fi ci Dakar ak Serigne Touba nee adina lo fi manti am bo nelewé fatte ko bo déwé ñak ko Serigne Touba nee wañi len teud bi ndax bisa ngi ñëw boo xam ne ku mu neex di nga tëdd ku mu neexul di nga tëdd sëriñ Tuuba mas naa bind ñetti dara daldi di ne yàlla mi ko xam ci moom dara doo ko moy ci dara àdduna mii ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des àllaaxira mii ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ba yéem ko ndax dara du fa doy sëriñ Tuuba mas nay julli muy taw ba mu jullee ba sëlmal daal di mui tau ngay julli muy taw metti na de ñu ne ko waawoo Mbàkke mu ne waaye nga nekk ci biir bàmmeel muy tàng moo ko gën a metti Sëriñ nee na ñett ñi suuf attanu leen kuy nelaw waxtu fajar ak ku rey nit ak ndox muy jóge ci sangum ku njaalo ba pare ndax ndox moomu buy wàcc suuf suuf si dafay onk ndax diis ku mu diis ci kawam euh, Sëriñ Tuubaa mas naa wax ku ñuy wax kale sëy ca Jolof ne ko nit juróom la alal yaram yax jëf ak ruu bu faatoo suñ borom day jël alal ji jox ko ña koy dond ne leen lekk leen ko te bu leen ko ci sant maa leen ko jox jël yaram wi jox ko sax yi ne leen lekk leen ko te leen ko ci sant maa leen ko jox jël euh, yax yi jox ko suuf si ne ko lekkal te ko ci sant maa la ko jox jël euh, euh, la ko ca amal soxla mooy jëf ji ak ruug kon nag na ngeen di sellal seeni jëf tey setal seeni ruux Sëriñ Tuuba nee na ñi yaruwul nañu leen yar ndax ku ay waajuram yarul àddina yar ko ku àddina yarul bàmmeel yar ko ku bàmmeel te ku bàmmeel yar di nga yaru ndax sunu boroom kenn du fa yóbbu ak réewande ah, Sëriñ Tuuba nee na ku oor ci ñaawtee fi bakkanam dana doge ci ngëneeli boroomam sëriñ Touba nee na juróom yi buñ xam seeni juróom seeni waajur buñ xam seenu naqari deret seenu njaboot buñ xam seenu nay waxtu julli yi buñ xam seen i yite bërëbu liggéeyukaay yi buñ xam seenu tayel dëkkandoo yi buñ xam seen i ñaawi sëriñ Touba nee woon na da ngeen dem ba jëmbi jamono ñett bari lool ñett te ticc téere yi bari lool jàng te ticc palaasu liggéeykaay bari lool am te jigéen ñi bari lool sëy te ticc euh, am na ku mës a ñëw ci sëriñ Touba ne dama bëgg a bëgg a seex Serigne Touba ne ko ku seexlu lu bon ku ne ab seex nga am ma jëmmi leer ga ñuy def ci yow nag ba nit ba nit ñi topp la julli ñaari rakka moo ko gën a jafe ci ñun Serigne Touba mas naa nekk Touba mook Seex Ibrahima Fall Sëñ Touba taal loo ko ab taal. nekk ci guddi sëñ Tuubaa nekk ñee ca wetu taal ba di bind nees tuut am ay nit yu dugg si daldi di nuyoog sëñ bi daa ne ko ñun day dañoo dañu doon dem daal di réer waaye bi ñu gisee sawara si ak tàkk-tàkk bi lañu daal di gindeeku ndax dañoo gëlëmoon bi ñu gisee tàkk-tàkk bi la ñu gindeeku xam ne buñ fi ñëwee dañ xam yoon wi sëñ Tuubaa ne leen hakaza nii rek la de ëllëg yowmal xiyaam ku réer it sawara sawara rek moo lay gindi nii leen sawara wi gindee yow xiyaam ku réer it sawara rek moo lay gindi am na benn taalibe bu doon xëccoo suuf bi mu ñëwee wax wax ko sëñ bi pour sëñ bi ñaanal ko ci sëñ bi tere ko mu xaw a niig niigal ba mu yàgg mu far nangu suuf sa ñëw ci sëñ Tuubaa ko man day suuf sama la doon ñaan loo mujjee naa ko sax far nangu sëñ Tuubaa ko mbaa nanguwaale nga asamaan sax ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de am na benn waaye bu ñëwoon ci sëñ Tuubaa di ko présenté ab xaritam naan ko kii day sama xarit la mbërum làmb la ah, tund wi yëpp daan na leen sëriñ Tuubaa dana bërët joxoñ ko armée leen ne ko ananoo def ak mbëri mi daan ñi di fii sëriñ Tuubaa mas naa dégg am tëgg ci njaareem mu laajte loolu lu mu ñu ne ko ñooñu day dañuy làmb mu ne duñu daj dara duñ daj dara duñ daj dara sëriñ Tuubaa nee na dee leen moytoo gis seen bopp ndax ku gis boppam yàlla réer ko te ku yàlla réer saytaane wommat ko te ku saytaane wommat sawaraan rek la koy jëmee Sëriñ Tuubaa nee na dee leen moytoo waxe bakkan ndax ko waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen féewaloo te féewaloo lu la xaj na ci Sëriñ Tuubaa nee na euh, am na ku mës a ñëw ci Sëriñ Tuubaa ne ko damaa amul baay aw ma yaay aw ma nijaay ma bëggoon nga doon sama baay doon sama yaay doon sama nijaay Sëriñ Tuubaa ne ko loolu jëru fee tooge boo demee nga jël ragal yàlla def ko muy sa baay nga jël jaamu yàlla def ko muy sa yaay te nga jël liggéey def ko muy sa nijaay Sëriñ Tuubaa nee na ku leen di sati soxlaam te ngeen man ca dara bu leen ko gànt mukk daldi di ne wërsëg bi leen yàlla jox nangeen koy def ci seenu njaboot ak néew doole yi te ngeen fonk sarax tey ñaan yàlla njéggal ak yërmandeem Sëriñ Tuubaa nee kuy tok ci jataayub jigen, di nga fa jele ñaar mooy toroxtaange ak moy yalla ndax li ci ëpp ci ñom jëw rek lañuy def kuy tok ci jataayu ku ñak neena di nga fa jele ñaar moy sante yalla ak doylo neena kuy tok ci jataayu ku reer di nga fa jele ñaar moy fatte ak moy yalla kuy tok ci jataayu borom xam-xam nak di nga fa jele ñaar xam-xam ak hikma kuy tok ci yu borom alal nak di nga fa jele ñaar moy xir ak ay mbebet yu bari neena kuy tok ci yu xale di nga fa jele ñaar moy fo ak reetaan amna ku mësa ñew ci Serigne Touba ne ko dama bëgg baña tak soxna ndax jigen ni ñu mel dañu doy war Serigne Touba ne ko boko defé gën ñëpp waji dem abdir. tak euh, dem abdir ay wer del si seigne touba ne ko man day dama bëgg far tak soxna ndax gis na ne mënatuma koo muñ seigne touba ne ko boko ko yam ak ñëpp mu dem tak soxna ab diir ay wer del si ci seigne touba ne ko man day dama go bëgg far fasé ndax ay jikom seigne touba ne ko boko yes kon nañuy moytu di tak ka wacci euh, ndax wacci mom lu doy war la ndax abghadul ila allah at talaq li yalla daganal yëpp fasale ci gëna bañ te suñu borom nee na laa tutal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tutaliqu illa min riba fa inna allaha laa leen di takk-takkee waaye bu leen di sëyee ka tas ndax suñu borom bëggul góor guy takk ak wàcci waaye bëggul jigéen guy sëyee ka tas kon loolu it nañu ko bàyyi xel bu baax a baax euh, Serigne Touba nee na sunu borom day bëgg na gone guy mag-maglu mag waaye bëggul mag muy gone gone loo gone guy mag-maglu nag mooy gone goo xam ne foo ko fekk rek day jaamu yàlla di sonn ci yàlla mag muy gone gone nag mooy mag muy fo ndax jaamu yàlla ci mag lañ ko xamee woon fo ci xale lañ ko xamee kon moo tax mu ne suñu borom bëgg na gone guy mag maglu mag maglu nag ci jaamu yàlla waaye bañ na mag muy gone gone lu mooy mag muy fo soxna Xujja Jóob bokkoon ci waa Kokki dafa mës a ñëw ci sëñ Tuubaa ko damay dégg ñu ne sawara borom musóor yaa fa ëpp damay laaj ndax borom kaala dafa amul wala det sëriñ Tuubaa ne ko ah kay borom kaala nga fa sax waaye borom kaala goo fa gis borom musóor ko fa yóbbu te loolu sorewul ak li sallallahu alayhi wa sallam di wax ne atalaatu ala jannati fara aytu aktara ahliha ahliha rijal wa atalaatu ala naar fara aytu aktara ahliha nisa yër naa aljana ma gis ne aljana góor ñaa fa ëpp mayër sawara gis na sawara jigéen ñaa fa ëpp am jigéen bu jug laaj ko ne ko lu waral loolu yow yonent bi yàlla bi mu ne ko da ngeen a mën a weddi njëkki njëkk mooy saa yu leen seen borom kër defalee dara bu ngeen meree fàtte ko kon yéen jigéen ñi na ngeen fexe ba bu leen bokk ca borom musal yu fay ëpp waaye it bu leen bokk ca borom musal yu fay yóbbuwaate Sëriñ Tuubaa nee na asgor góor dëgg du soppeeku ni mel rek lay mer as dëgg du du wéet di war du wax ak yow ci biir génn war la as góor dëgg du ko def Sëriñ Tuubaa nee na asgor du dige mënul as góor dëgg du lu mënul Sëriñ Tuubaa na as nag dina maslaa ku ko jikkoom soof as góor dina teral ku mu xamul asgor dina dimbale ku mu tane waaye as gor dina xam lu jar a wax noppi Sëriñ Tuubaa nee na buur buy fay jëf jafewul a jaamu waaye buur du fay jëf du buur buy fay yéene jafewul a jaamu waaye buur du fay yéene mukk ak man des fa Sëriñ Tuubaa nee na ku bëgg di ab sang dangay nangoo nekk ab jaam ku bëgg a doon sëriñ da ngay nangoo nekk ab taalibe dal di ne lu waay yor àttan koo joxe ngir jëm yàlla rek tax sa yo gessoo gis ko la ko attanu jox ngir jëm yalla waye lu way yorté te ko joxe ngir jëm yalla boo waroon àddina ba mu daj do gis ko ko jox ngir yalla dal di ne ku wax ne ku ma topp ma dem ku ma ma dem sa yo gessoo gis mbolo ci sa ginaaw serigne touba neena na ut xarit na nga moytu ut xarit bu amul xel na nga moytu ut xarit bu iñaan na nga moytu ut xarit bu topo ba kanam ndax ñetti ñetti xarit yépp kenn baaxu ci serigne touba neena teggin moy li gëna am solo ci adina ak akhirah. te moy li gën ci li nit ci li nit di ndamo serigne touba neena na nga noppi sa yo xamul lo wara wax bul dag sante mu mukk bul ciow mukk bul xolo mukk bul xiro mukk bul ngaayo mukk lula way soxore soxore mbaa mu la mbaa mu bañ la yow yow yow bul bul bul tontu teg moom bul tontu kenn bul gaaruwaale kenn ci whatsapp bi bul gaaruwaale kenn ci message écrit yi bul wax ak kenn ku la tooñ daal yow Serigne Touba nee na noppil jàpp sa bopp ndax am na wax yoo xam ne noppi mooy tontoom rubu xawlin jawaabuhu asukut bari waa ne ay wax yoo xam ne noppi mooy tontoom te law kana law kaanal kalaamu fiddatan la kaana sukutu dahaba wax bu doon nopi durus kon ki la bañ mbaa mu lay jëw di la soxore ak di la iñaane di la wax lu bon di nek sab der di ko yàq saa su nekk yow bul tontonteeg moom bul wax ak moom noppi rek ta jàpp sa bopp bu yàggee noppi gi ngay noppi moom moo moom moo koy rusloo moom moo koy tontu ndax noppi wax la Sëriñ Tuubaa nee na kenn deful kenn dara lu waay def boppam nit ki la bàyyi te defoo ko dara bu mu la metti ndax am na ku la bëgg jàpp la te defaloo ko dara kon nag dee leen baaloon te àq tey moytu jëf ji ñaaw mbaa wax ko mbaa def ko Sëriñ Tuubaa nee na bu jamono jaxasoowee dénk naa leen juróom mooy toog noppi liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la Sëriñ Tuubaa nee na bu jamono soppi ko ku bëgg a àgg dénk naa la juróom mooy yanuloo attan doxe noo man dugg bunt boo xam génnuwaay ba moytu pexem jigéen te tey wakkiirlu ci yàlla mas naa ci Serigne Touba Serigne Touba ne leen na ngeen man gan te bu leen tëla dëkk te bu leen tëla ñu ne ko fas nañu ko yéene Serigne Touba ne leen ndax xam ngeen luy luy gan ñu wax ko la ñu ci xam sëriñ bi ne leen nuru na ko waaye waaye du moom gan mooy guddi ak bëccëg man gan ci ñoom mooy fexe ba doo def ci ñoom lu lay rusloo ëllëg yowmal xiyaam fa sa kanamu borom. ne xam ngeen luy dëkkandoo ñu wax ko la ñu ca xam mu ne nuru na ko waaye du moom dëkkandoo mooy raqib ak atid mooy ñaari malaaka yi nekk ci mbaggum jaam bu ne daan ne man gan ci ñoom nag mooy fexe ba duñ la bindal lu lay rusloo ëllëg yowmal xiyaam fa sa kanamu borom euh, sëriñ Tuuba nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dala fay rus wala nga ànd ku yàlla rus wala yàlla rusloo la fa dal ne ni ngay def ba yàlla rus la nag ànd ak ko yàlla rus moo ko gën a yomb mas naa sëriñ Touba mas naa wax doomam ji ñu wax soxna Faat Ja Mbàkke ne ko mbaa nit ñi du ñu wax sa digganteeg sa borom soxna Faat Ja ne teg sëriñ Touba ne ko koo mënta liggéeyloo bul ko dig teraanga koo mënta jaamuloo yàlla bul ko dig àjjana koo mënalul fii dara na ngeen teel a taqale ko balaa ëllëg yowmal xiyaam mu lay lajal am na ko mës a ñëw ci sëriñ Touba ne ko sama soxna daa faatu bëggoon nga ñaanal ko xam naa sax dina am lu baax ndax man gërëm naa ko sëñ Tuubaa ne ko yow ku la gërëm loolu bañ koy wax borom kër bu am ngërëmul yàlla mbaa borom kër bu am ngërëmul waaju baax moo taxoon ñuy wax am na ku mës a ñëw ci sëriñ ne ko sama soxna daa nanguwul julli ma bëggoon a xam loo ma ciy digal sëriñ bi ne ko ndax man nga waxtu julli bu jot nga ne ko jugal julli mu ne ko waaw sëñ bi ne ko def ko boo ko dee def ba ngeen faatu ba àgg fa ka leen digaloon julli yow nga ànd ak ka daan julli moom mu ànd ka julli Euh, Serigne Touba nee na na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu dal ne fulla mooy loo sori sori ci mbir fa ci lu baax yem nga yem fa fayda mooy looy def ci lu baax nga yemale nekk ca yow dong ak nekk ca mbooloo farlu mooy loo baaxoo def ci lu baax nga def ko saayu yu heure ba nga ko daan def jotee nga nga def ko ak ak lu mu xat-xat Serigne Touba nee na na ngeen Serigne Touba na na ngeen am fulla na ngeen am fayda na ngeen farlu dal di ne fulla mooy loo sori sori ci mbir fu ci lu baax yem nga yem fa fayda mooy looy def ci lu baax nga yemale nekk ci yow dong ak nekk ci ak mbooloo farlu mooy loo baaxoo def ci lu baax saa yu heure ba nga ko daan def jotee nga def ko ak lu mu xat-xat Sëriñ Tuubaa na ndaw lu ne mucc ak njub lay war di lay war di sàkku saa su nekk daldi ne mucc des na ko sàkkoo ci juróom warmaal ku warmaal warmal lu mata warmal luñ na baax nga def luñ na bon na nga bayyi tay ñaan yalla musal la jup des na ko sakko ci juroom bul togn bul fayu bul xaccio luñ na jup na nga sax ca tay ñaan yalla jubal la serigne touba neena def lu la neex wax lu la neex yowmal khiyam nga dajeeg la la neex amul fi ci man muhammadu bamba ku ko xam mbaa nga deg fu mu am nga dem fa outiko iñaneewuma lako amna ku sa ñew ci serigne touba andil ko ay verre ay neko ne ko li day bax na ci mbind mi ngay bind serigne bi takko waji waa bëgg lu neex serigne mi ne ko dang koy ba ci bakkan bi serigne Touba ne ko accam wat ko wéré ne ko top bakkan la ci dégg ne ko accam wat ko ko. am ku mës ñew ci serigne Touba andil ko guro ne ko sering déggoon serigne serigne bi ne ko lo ci jublu mu ne ko dama dégg ñu ne da nga bëgg guro serigne Touba ne ko dal di ne lepp luy guro tay mu fanan ci kër gi ndax man kenn duma mandal mandal mandargaale lenn ludul bëgg yalla ak yonentam am na ku mës a ñëw ci Serigne Touba di sàkku ndimbal ne ko ginnaaw bu yàlla jàllee Serigne Touba ne ñokket jug bàyyi ko fa ne ko bu yàlla jàllee ak yonent bi sallallahu alayhi wa doo ma fa fekk sëriñ Touba Touba bi mës na ñëw ñëw ci moom de ko jaay affaire philosophe ne ko yàlla jii ngay jaamu lañ bëggoon nga wan ñu ko pour ñu pour ñu man koo jaamu lépp pour bëgg koo kokkali ak bëgg a xam philosophie Serigne Touba fan la toll. sëriñ Touba ne leen dimanche jooju ngeen di ngeen di feetal ak di ca noppalu jàpp leen ci noppub dimanche andil ma ko bu ngeen ko defee rek ma won leen sunu borom bu ngeen ma wonee dimanche jàpp ci noppub dimanche andil ma ko bu ko defee rek ma leen euh, sunu borom. sëriñ Touba nee na ñetti jikko yi laa leen sant ngeen roy ko ci tubaab yi mooy am fayda ci seenub liggéey fonk seen kilifa ak mën a saytu mbóot mën a mbóot nag mooy mën a topp action ba mën caa jëlee xam-xam am na ku mës ñëw ci sëriñ ko ñaar ñii. laa bëggoon nga ñaanal leen ñu juboo ñaar ñii laa bëggoon nga ñaanal leen ñu juboo Sëriñ tubaane ne ko teemalee na ñaanal ñi jub ba pare soog a juboo ndax àddina lépp lu fi yàqu ñaar ñu juboo te jubuñ moo ko yàq am na ku mës a ñëw ci Serigne Touba ne ko sama doomu ni yaay yi laa bëggoon nga ñaanal ma pour ma takk ko ndax dama koo bëgg lool Serigne Touba ko loolu jërta ñaan ndax jigéen ñi ñetti xaaj lañ ki nga xam ne bi ko yàlla bind yaa tax ak ki nga xam ne bi ko yàllay bind taxaw ak ki nga xam ne bi ko yàllay bind da nga am wàll sa am ci wàll ne ko ki nga xam ne bi ko yàllay bind yaa tax boo yoree di nga ko yor boo yorul di nga ko yor kenn mun la koo teree yor ki nga xam ne bi ko yàllay bind taxaw boo yoree doo ko yor boo yorul doo ko yor kenn mun la koo tax a yor ki nga xam ne bi ko yàllay bind nag da cee am wàll sa morom am ci wàll jàppal na lu mu yàgg-yàgg ci say loxo dina mës a tuxu ci say loxo dem ci yeneen loxo euh, Sëriñ Tuuba nee na ramm fii la ñu koy defee ci àddina boo doonee ab sëriñ te bëgg a ramm sab taalibe da koy digal lu baax di ko di ko tere lu bon da koy digal lu baax muy def nga koy tere lu bon muy bàyyi bu deewee tabbi aljana sëriñ tubaa nee na àdduna loo fi gis sutura la teraanga nga dëgg yowmal xayaam rek lay am daldi ne ku bëgg a sutura ci àddina da ngay nangoo liggéey ku bëgg teraa nga ci àllaaxira nag da ngay nangoo jaamu yàlla sëriñ Tuubaa nee na dee leen yërëm ñi ngeen féete ndaw te di leen digal lu leen di jariñ te di leen teg yoonu jub Sëriñ Tuuba nee na képp ku naan bu ma doonoon gone jàngi alxuraan ba am doom te jàngaloo ko alxuraan weddi nga sa bopp am na benn couple bu mës a ñëw ci Sëriñ Tuuba ne ko dañoo sëy lu yàgg te amuñu doom ñu bëggoon nga ñaanal ñu ñu am doom Sëriñ Tuuba leen doom ba ab sëy ba ñu koy wax doom taxul ñàkk bañ a mooy yàlla moo taxoon ñuy waxub sëy doom doom bi nag bénéfice la ci daan góor ak jigéen ku ci toll ci ku ci mat a sëy bu la óoree ne boo sëyul doom mooy yàlla bu la neexee nga bañ a sëy Sëriñ Tuubaa nee na boo saxee ci aw yiw boo saxee Sëriñ Tuubaa nee na boo saxee ci yéene aw yiw ku la mën a bañ dana la mujj sopp boo saxee ci wax aw yiw ku la mën a ŋàññi dana la mujj tagg boo saxee ci jëf aw yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral sëriñ Tuubaa nee na bu ngeen xëyatee na ngeen jiital jaamu yàlla tey liggéey tey wettali ko topp ndigal yi tey tey wettali ko topp ndigal ndigal yàlla yi tey bañ a wettali koo jëmm te te ngeen te ngeen jël ndigalu yàlla yi def leen ab sëriñ te ngeen bañ a jël aw sant def ko sëriñ euh, daan ne ku bëgg a tedd fii ci àddina da ngay nangoo liggéey ku bëgg a texe yowmal xiyaam da ngay nangoo jaamu yàlla sëriñ Tuubaa nee na euh, attey diine yëpp ñett ñett ñett yi la man mandóob ak mu baax dal ne ndax xam ngeen lan mooy seen waajib ñu ne ñu teg mu ne mooy wàcc lali dem ca der ya ndax ab tëddaay nga ca kanam boo xam ne ku ci àgg danga tëdd ba tëdd loo bëggutoon a tëdd euh, sëriñ Touba daat na it ndax xam ngeen lan mooy seen man dóob ñu ne teg mu ne mooy wàññi ndamu yi ak puukaréew yi ba ñu ne démb la woon bis penc daan ne ndax xam ngeen lan mooy seen mu baax ñu ne teg mu ne dara dara dara daan ne dara ju njëkk ji mooy yàlla mii ko xam ci moom dara la muy tere doo ca def dara adduna mii ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi des alaxira mii ko xam ci moom dara doo ko fàggul dara ba naw ko ndax dara du fa doy Sëriñ Tuubaa nee na adduna euh, euh, jërul alaxira euh, banneex jërul gàcce Sëriñ Tuubaa na adduna jërul alaxira banneex jërul gàcce tayel jërul ak ñàkk kon nag ñu yemale foofu suñu émission tay bi mu nekkoon ci tom bi Serigne Touba khadim Rassoul yi muy première partie bi incha allah rabbi dana ñëw andil leen deuxième partie bi di sant bu baax waa Dakar ak ci yëpp commencé ko ci euh, Serigne mi nga xam ne moom mooy seen jiit te yaatal ñu lool ci kër gi wàcc ba ci Serigne Sele Mbay moom mi nga xam ne suñu ñëw fii moo sabab te luñ fi am rek ci jëmmam la jaare di ko sant bu baax ak waa Dakaractu yëpp góor ñi ak jigéen ñi di leen ñaanal jàmmi suñu borom ak njéggalam ak yërmandeem allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammad nabiil ummi allazi tanhalu bihi alxoqadu wa tanfariju bihi alkurabu wa tuqda bihi alxawaiju wa tunaalu bihi alraxaibu wa husnu alxawaatimi wa yustadqa algamaamu bi wajhi alkarim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamxatin wa nafasin bi adadi kulli maalumin laka